إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك مصرى إني asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di jullit yi mbokki taalibe yi di bàyyi seen xel Touba télé Touba Monde bi TV lëkkaloo ak rajo xasida online Touba Monde bi comme niñ nekke woon ci biir salle bi rek euh, ci wàccaay bi si xasida Touba Italie édition 2017 ñu jàpp ko le 23 septembre 2017 ni ki suba rek incha allah ay waxtu yu néew des si kon mel na ñoo ngi taxaw rek ak sëñ Ibrahima Cissé mi nga xam ne moom mooy responsable comité d' organisation bu Touba maanaam bu bisu xasida Touba Italie kon suñu Ibrahima gannaaw bu la nuyoo rek ziar lu baax a baax di la masawu coono yi nga xam ne coono mbégte la waaye coono bànneex la tamit ndax euh, sëñ moom li mu wax leer na euh, maam dañuy wax ne sëñ moom ñi mu wul bor waaye képp ko tamit yaakaar naa doo ko rëccu waaw kon li ñuy ñaan rek mooy li wax wax di xawaay sana daamo fii xidmate woofu lafu maaraamo ñu tàbbi ci ci barke Seelu Xadim bari xasida yi euh, mu mel ne ñi ngi ci bis ñi naa ko wax noonu ndax luñ ne ay waxtu yu néew des kon loolu ñi ngi ci bis mu mel ne yéen yéen a yore li nga xam ne moom mooy comité d'organisation bu bisu xasida yi mm. ñu bëggoon a xam rek gannaaw bu nuyoo baax ziar la euh, wàccaay wi ñu toll nii nga xam ne ñu ngi ci bis bi mën naa ne mm. maanaam ndax lépp yemb na ak yenn disposition ngeen toll fi mu nekk nii ci wàllu liggéey bi mm-hmm. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu mbokk taalibe yi ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax tey jégalu euh, di xam xamle rek ne daanaka liggéey bi ni ngeen ko waxee rek daanaka lépp mën na ndax boo leen xoolee ci ginnaaw di ngeen gis nasaraan si ñoom ñi ngi monter palco bi mbokki taalibe yaa ngi def yi ca des euh, secteur yëpp a ngi def seen warwaaf ndax euh, lu jëm ci transport ñoo ngi jógee gan yi nekk bitim réew am na ñu jot a ñëw dalal nañ leen euh, sëñ Cheikh Bara it egsi na moom it daanaka ma nga ca dalluwaayam ni ngeen ko gisee nii rek daanaka mbokki taalibe bi ñu ngi àggali des ci tapis yeeg lal moquette yeeg yooyu waaye daanaka daal mën nañ ne daal lépp yemb na nañ Sëriñ Tuubaa bu baax sant nañ ko bu baax wax dëgg yàlla jëriñ waaw lépp yemb na waaw euh, jërëjëf suñu raay ma mu mel ni nga wax rek lépp yemb na waaye ñu gis ne wax dëgg yàlla gis na ne ren jël ngeen ay saal yu yaatu ngir euh, lépp rek bëgg ak accueillir nit ñi nga xam ñoo fi ñëw bañ fekki fii fekki waan boo xam ne maam du wuutee kër yañ jógee mm-hmm. mu mel ne gis nañ jël ñetti saal boo xam ne benn dañ ko jéglee wàllu jaaykat yi benn bi suñ mbokki soxna yi benn bi góor yàlla yi nga xam ne ñoom ñooy durus ak di xasida yi mm-hmm. ndax mën nañ xam gannaaw yan coppiku yu bees ñoo amaat ci wàccuwaayu yan coppiku yu bees ñoo ci amaat euh, daanaka coppiku yu bees yi am moom xaw na bari bariwul lenn li li ko indi sax euh, mooy daanaka euh, sécurité bi nga xamante ne moom la ñu moom la réew mi laaj ndax ba ñuy dem di firmaari contrat bi tubaab bi daf ñu xamal ne kat mel ni ni ginnaaw yenn euh, xew-xew yi amoon ci yenn dëkk yi ñu jege daanaka gars yi dañ ci xawoon a sévère ba tax na loolu daanaka moo gën a indi càpp ki yu si bari te it wax dëgg yàlla boobu ba léegi ñu ñuy soññ ci fexe ba soxna yi ak góor yàlla yi daanaka bañ di bokk barab ba ñuy ne loolu indi na ko euh, ñoom sëñ Moustapha Diakhaté ñi daanaka soññuñu ci lool lool lool sax euh, ba tax na euh, xëy na loolu it ci coppiku yi moom bu weesoo sécurité sa bi nga xamante ne moom la réew mi laaj ci jamono yi daanaka li ci bari moom daanaka diine moo nu ko moo moo nu obligé ñu def ko waaw mënuñu ko ñàkk bañ a def waaw daanaka daal ci coppiku yi it xëy na amit barab bu nekk ci biir fii nga xamante ne yenn gan yi mën nañu dal fii te duñu jóge ci barab bi ba seen ba liñ fi leen fi jeex incha allah waaw waaw xam naa daal ci wàllu coppiku daal xam naa ne looloo ci looloo ci dugg waaw waaw. Euh, ñu sëñ Ibrahima xam naa ne kon sa kàddu yu mujj rek euh, donte ci ci ci jotaay bi waaye xam naa jëmu ci kanam incha allah dana la soxlawaat xëy na si yeneen laaj waaye sa kàddu yu mujj xëy na ci wàccaay bi nga xam ne ci ngeen nekk nii jëmale suba incha allah en tant que yoo xam ne yaa yore li nga xam ne moom mooy comité d'organisation ak yan kàddu ngay jox mbokk yi nga xam ñu ngi ñëw ci bis bi jóge ci fu nek way ñi nga xamanteni ñoo ne ci biir Italie di tej bis bi yan kàddu ngeen denk ngir ñu bayyi xel bu ñuy aksi ci suba insha taala waaw jëriñ mom de kàddu yi moom du weesu kàddu cant rek ndax lo xamanteni ne kay wajal at ba ay waxtu dess ci ak ni mu demee ñu wër am xéewal am tawfiq fekkee ko nam ko liggéeyal sëriñ bi di ñaan rek mu nangul nuko wa di ñaan rek mu nangul nu <laughs> cant gi wa waye xamna ne kaddu yi soññee yi ñu ci xam ne lañ ciy def loolu moom mbokk yi jóge bitim réew moom noonu moom moom sunuy sëriñ lañ bàyyi seen yitte ngir ñëw ñu ànd liggéey bi waaye mbokki taalibe yi xam ne ñoo bokk na ci réew mi kaddu yi moom weesul ñu xam ne eh, ni nga ko waxee léegi eh, sëñ Mbàkke ñetti barab ku ko jël xam ne mbooloo koy taxawu eh, ba tax na li may wax rek ku jóge ci barab ñëw di jàng waxtu te mu mel ni am bés la donc li des ci bés bi da ngay tàbbiwaat ci ci ci organisation bi nga xam ne ñun ñii yëpp ñoo ko bokk seq donc daal xam naa di soññaan mbokki taalibe ñu xam ne liggéey bi yaana ni ngeen ko gisee euh, tarkal la moom daal xam nañ ne mbooloo ñooy ñooy ñooy taxawu mbooloo mbooloo mi daanaka euh, mooy ñu nekk ci kuréel yëpp rek waaw moom daal xam naa ne kàddu soññee yi xëy na ñu xam ne rek duñu ay gan ñu ñu ne ci dëkk bi waaye du Lombardia ñoo organisé Italie moo organisé waaw xam naa daal foofu rek laa doon euh, jeexale kàddu yi daal waaw ñoo ngi santaat bu baax a baax xam naa rek ngeen jëm a àgg fi comme am nañu waañ bu nekk fii deux kilomètres trois muy taw féexit ngeen àgg fa euh, xool mbokki taalibe yi la ñu nekkee ak commission yi nar incha allah sant nañ leen bu baax a baax ci taxaw bi jërë ngeen jëf jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñooy bàyyi xel Touba Monde bi TV kon ñuy fàttali rek ñoo ngi ci biir saalu Fera Milan bu Malpensa Fera fi nga xam ne fi la ñu amee la bisu xasida Touba Italie la 23 septembre ni ki suba insa ci gaaw bi euh, ñi bàyyiloo xel mbokk ñoo ci bëgg a ñëw kon via mi ngi nekk rek euh, via 11 septembre euh, Busto Arsizio Malpensa Fiera képp xam ne bëgg ñëw ci bis bi rek incha allah boo def via bu sa navigateur dana indi ba ci salle bi incha allah kon si Ibrahima jërëjëf ñu la sant baax di la gërëm inew xaadimu nasara tura fi لكي مسرى إني أخادم النصارى ترى في أرهم لمالك مسرى mbokk yi rek ba tey kon ñoo ngi ci biir Feera bu Malpensa Malpensa Feera fii ci Busto Arsizio fi nga xam ne fi la ñu amee bis xës de Touba Italie incha allah ni ki suba le 23 septembre 2017 Euh, ñoo ngi taxaw ak Baye Modou Ndiaye mi nga xam ne mooy ba tey kenn ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo yore wàllu organisation bi moom nag mu féete ci côté bi nga xam ne mooy côté alacimente ak côté sonorisation Baye Modou ginnaaw mu leen nuyoo baax rek ziar la ba tey di leen masawu coono yi mbégte ak coono bànneex yi nga xam ne daa nekk altine ba léegi yéen a ngi ci ci diggante saytu bagage yi indi beeg coordination beeg lépp li ci aju rek euh, mu mel ne gis nañ ne monté ngeen li nga mooy palk bi ba pare mel na ne tamit euh, sonorisation mel ne lu ci bëri yéeg na ci kaw Eh, ta yow ya yoré matt googu bay Modou ñu bëgg laaj rek naka ngeen wàccaaye wo nak ngeen ko teurele ak eh, fi ma waxe yow ni lan mo ci dess ak fan ngeen tollu bay Modou ci ñaari fan yooyu mi digg allaitement bi ak eh, walu sonisation bi bay Modou. auzu billahi minash shaytaani rajim bismillahir rahmanir rahim alaykum wa rahmatullah seigne Mbàkke ñu ngi di ziar baax di len nuyu lolu jëm ci allaitement bi mom niñ ci jublu rek moy bis bi da ko laaj euh, day waay bis bi tam toll na ni yàlla dogal na at mu jot Sëñ Tuubaa ci tawféexam ñu ngi ci am ay jéego euh, ren jii nag ñu ngi def nañ ci ay ay ay ay ay ay ay ay jéego yoo xamante ni euh, yaakaar naa ñëpp teg nañ ci seen bët ci lu dem demee ci surtout sonorisation bi nga xamante ni si xëj na bi ko tubaab bi di sàkk leneen taxoon waaye ñun li ñu gëm mooy xasida sëñ Tuubaa yi moom ci la ci la ci la gën a yell ba tax na def nañ ci xëj na ay ay ay ay ay ay ay ay coono ak ak ay ay ay ay innovation yoo xamante ni day technique ba mën a suul nekk di ko leeral waaye daal def def nañ suñu kiim kattan te fas nañ yéen at mu jot ñu def ñu defee ko noonu firnde gi nag mooy jël nañ ñoo xam seen xam-xam màcc na ci lool doonte am na ay mbokkutaal taal fi nekk yoo xam mën nañ ko saytu ñoo xam ci waa réew mi lañ. ay danañ faral di liggéey ak eh, ñuy wàllu yëngu ci wàllu googu ci ci ci ci dimension yi kawe eh, ngir rek mën a couvrir bis bi ba képp koo xamante ni eh, ab taal ab wala ab julli rek ci gàttal jóg nga foofu lu mu sori sori boo ñëwee di nga fi dégg loo xamante ni si dina leer nañ sa nopp dina dina neexit ndax xas day moom bi nga koy jàng moom dañ taamu baat baat bu neex baat bu neexee na kon ko koy koy lantinoor ba koy jàll muy son bi war na neex ba dëppook moom loolu leen la rek ñu mën wax ci wàllu son bi leen li ci teg wax muy allèsiment décoration yi kooku xëy na mat moo xamante ne ku wax sëñ naar mbay euh, di suñu jëwin euh, rek lañ ciy taxawu ndax wàllam kon ñu xam ne nam daan dox rek la ñu sof sof di dégg di taataan tamit ay ay ay ay ay ay ay ay ndigalam ba jéem suñu kéem kàttam na ko daan doxalee loolu nag moo di buñ seetloo ren mel na ni am nañ li ñuy wax LED wall mu xeetu écran boo xamante ni euh, digital bu bu bu bu boo xam mooy gën a am solo lu mel ni vidéo projecteur yi ngir euh, bëgg rek ki kii taxaw di jàkkaar image bi mu leer ci moom bu baax a baax a baax euh, ak it boo seetloo bu baax a baax lu mel ni gamaak bi teg ko murit yëpp ku nekk am daywaay boo xamante ni ci ci njàng mi mooy tolloo moo wax ñu ko ci diggu salle bi Euh, mu tëddee noonu lu wàll jëm itam ci wàllu nga xam mooy ànd ak njàngum yëkkati muy durus bi alxuraan dina gën a féete penku li ko gaw yëpp nekk ay ay ay ay diwaan yoo xamante ne fas nañ ko yéene jàppoonoon ba keroog euh, liggéey bi di egg di ñaan suñu boroom ni yéene ñu ci am sëñ Tuubaa fekk ci ñu ànd cee ngërëmam ñu ngi jéglu baax baax kàddu yi xam naa lu ci manqué rek ci ñun la jërëjëf Baye Modou mu mel ne rek gis nañ ne sonorisation bi buñ xoolee at yi ñu génn ak at mi nekk mel na ne biñ fa awee sànq am na ak yokk gu baax a baax boo xam ne feeñ na ci loolu ndax mën nañoo xam la mooy sabab yi ak euh, naka la loolu demee Baye Modou. waaw loolu xam na xaw nañ ko doxee rek suñu wax ci njalbeen gi moo di at mu jot euh, nit ku nekk àdduna moom euh, dara jagut àdduna moo jagut waaye at mu jot di nga seetlu la nga amoon rëq-rëq daaw ren jii ngay jëkmal ba jëm ko saafara loolu lu war la ci fànn yëpp ci ku bëgg dox jëm ci kanam. Euh, rawat na liggéey bi nga xam ne mooy suñu lépp dañ ciy sàkku ngërëmal sëriñ bi ñun ñëpp bokk nañ xam ne euh, son bi daana euh, ci wàllu sonorisation daana am ay ay ay ay ay jéego yu am solo waaye nag amaguñ li ñu gënal ren jii nag def nañ ci wàll yëpp loo xam ne moo tax ñu jël ñoo xam ñooñu sut ci xam-xam ci wàllu googu donte yàlla dogal na des na ci yëngu yàgg na ci waaye ñoo xam ñooñu sut ci xam-xam ca bi ñu nekk nii Euh, bi ñu bi ko defee ndax dañ ko def dañ ko def xeetu appel d'offre mun nga xam ñu bari lañ ay professionnels ñu bari ñu xool ki nga xam moo gën a dëpp li ñu bëgg muy koo xamante ne daanaka toll na si ñeent fukki at euh, fépp mu fii kii waaye rawatina foire bi nga xamante ne ay ay événement yu mag a mag a mag dañ fi am ci xeet yëpp mu koy couvrir euh, am yum ci wax yu bari ci xeetu yi nga xamante ni moo moo composé barab bi ci diggante ciment ak ak ay fer ak yëpp ak ak ak ak xeetu cablage bi ci nekk tamit Euh, retard yeeg yëpp ñu koy jéem a saytu ba son bi daal fi waaye nekk amoo am audibilité boo xamante ne wax dëgg yàlla dina dina dina am solo lool. du la tànqal ci di nga ko déggee ni nga ko bëgg a déggee muy message rek njàng meeg lépp rek loo tax ren jii ñu def ci ay ay ay ay ay ay jéego yoo xamante ne wax dëgg yàlla mel na ni euh, gàccal na baax a baax baax at yi ko weesu nag. Mhm. jërëjëf Baye Modou xam naa kon sa kaadu yu mujj rek incha allahu taala Baye Modou ci ci ci ci ci ci laaj yi rek xam naa sax jombul feek suba incha allah bu gën a yaatu rek xam naa du ñàkk yeneen laaj yoo xam ne dana jëm ci liggéey bi ba tey waaye xëy na sax kàddu yu mujj rek incha allah. waaw moom ndax xanaa kàddu sant sëriñ bi rek ndax loo defoon daaw nga fekke ko ren ak cant rek la doo boo daaw tamit bu fekkee yaa ngi ci liggéey sëriñ bi suñ suñu borom téel la pas-pas euh, euh, boobu pas boobu donte ñu ñu ñu saas na ñu ngi mu yokk euh, ñu ñëw ba ren yëg-yëg boobu nekk ci ñun dañ koy santaate sëriñ bu baax a baax di ñaan yàlla yokk saas na rek te ñu daje ca ngërëma sëñ bi liggéey bi jubluñ ci dara lu dul euh, euh, sëriñ bi liggéey mu defoon ci xasida yi donte lott nañ ci waaye jëm ko yaatal bu baax a baax ci réew yi ndax suñu njaboot dañ fi dañ fi dañ fi nekk yàlla nattoo ñu fi ñu fi ñu fi juddoo di fi màggee kon loolu yi nga xamante ne doon ne nañ ko ci sëriñ bi ci ci lu ki bari xam nañu sos euh, cëslaaye ci ci réew ma la ñu fexe ba transmettre leen ko fii ci anam yi mu gën a kawee dëppook jamono ca dara bañ cee génn sëriñ bi ñoo ngi jégul baax a baax jërëjëf mbokk yi kon ki ngeen déggoo mën a wax sànq rek moom mooy Baye Modou Ndiaye moom mooy réew lépp jëm ci wàllu sonorisation ak lépp na ma jëm ci wàllu alisimende ci wàccaay bi si xasida Touba Italie édition 2017 kon Baye Modou ñooy sant baax di la gërëm jërëjëf iniw xaadimu nasaratura fi ardim li maliki murtara rahmaani rahim kon ba tey rek mbokk yi kon niñ ko waxe woon rek ba tey ñoo ngi fi ci Touba Milano ci Malpensa Fiera ci Busto Arsizio taxaw ak Serigne si la moom mi nga xam ne moo jiite wàllu sécurité Serigne Ousseynou gannaaw bu ñu nuyoo baax ziar la euh, di leen masawu baax coono yi nga xam ne bañ jàppe bis ba léegi yéen a ngi ci ci ay ndaje ak ci ay déggante téléphone lépp rek ngir euh, bis bi mën a mucc ayib mën a murite comme ni nga xam ne noonu lañ ko bokk bëggee ñu ñëpp te mu dëppoog ni ko sëriñ bi bëggee euh, ndax mën nañ xam suñu Ousseynou rek ci wàllu sécurité bi fan ngeen toll jamono bi ñu toll nii ndax mel na ne looy waajal ci am at mhm. bañ dugg ci weer wi bañ dugg ci bis bi sax mën naa ndax ay waxtu yu néew moo ci des mhm. ndax ñi ngi ci ajuma ji ni ki suba ci gaaw bi moom mooy doon bis bi incha allah euh, yow mi yaa yore wàllu matt googu di sécurité euh, naka ngeen ko naka ngeen ko saytoo ak naka ngeen ko bëgg a ci bis bi incha allah ni bu neex suñu borom suñu Ousseynou asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ausubillahi min cheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim waaw sëñ Mbàkke euh, laaj bi am na solo lool liggéey bi am na solo boo seetloo salle bi daanaka suba ba léegi ñu ngi ci bañ ko ubbeeg léegi ñu ngi ciy dox ci disposition sécurité dafa doon nag euh, pàcc bu am solo boo xam ne mooy li nga xam te ni daanaka bu amul rek la ko nit ñi di yëg waaye bu amee daanaka du deesu ko yëg moom loolu mooy mooy mooy sécurité nga xam ne moom daanaka xorom la loo xam ne daanaka ci cin moom moom ni xorom mel ci cin noonu la mel nga xam ne daanaka bu xorom si ëppee mbaa mu rek ci lañ koy yëg waaye saa bu matee daanaka nit ñi duñ ko yëg ñun nag ci côté boobu la ñu dox su bañ tàmbaleeg léegi ah, ah équipe lañ yor nag boo xam te ni kenn ku nekk la nga war a def waxtaan nañ ceeg yow ba jox la ko euh, am na ñoo xam ne ñu ngi ci saal bi am na ñoo xam ne ña ngi ca parquet joba am na ñoo xam ne ña ngi ca biti di gindi gan ñi am na ñoo xam ne it ñi ngi ci wàllu soxna jigéen ñi ak fépp foo xam te ni day laaj pàcc sécurité rek ñu ngi ci Euh, li ci ëpp sol nag disposition yi mooy ñu respecter normes yi ndax euh, mbooloo plus de cinq mille personnes fu ñu war a tase dafay am ay normes yoo xamante ni ci la ñuy dem yendu ci nekk ci ba ba ñuy delluwaat fan jóge woon. bu ko defee loolu mooy jàmm ji mooy salle bi dafa am ay ay ay nuñ ko nuñ ko nuñ ko ne nga xam ne dañ ne fii ku lu ñuy lu ñuy tere foofu rek wax dëgg yàlla bu ñu saanoon ñëpp respecté ko ngir ñëpp nekk ci jàmm. donc buñ nee tey am na ay issue de secours yoo xam nii bu jëyee amee yàlla nañ ci yàlla musal waaye la yonente ba waxoon mm, saaba ba di yeewal sa gëléem gi ba mu dëgër te nga dénk ko suñ borom ñun suñ borom rek lan lan lan gëm moom lan yaakaar moom lan wóolu waaye nag dafa am loo xam ne suñ borom jëfi nit ñi da ci dugg mooy koo xam ne da ngeen a defar seen journée ba mu jeex am ñoo xam te ni dañuy ñëw bëgg indi yeneen yoo xam ne bokk ci loolu la ñuy ñaan euh, pèlerin yëpp fexe ba

dañuy ñaan yàlla rek nit ñi respecteel ñu ko toppatool ñu ko te kenn ku ne ñëw ci jàmm yendu fi ci jàmm dellu ci jàmm te yàlla nangul ñu liggéey bépp ak jëmmi Serigne tubaa mi tax ñu koy def barki Cheikhul Khadim Cheikh Sidi Makhtar tamit yàlla yàggal ko fi ba lim na ma liggéeyal Serigne Touba lépp yàlla defal ko ko ci kanam yu mu ko bëggee asalaamaaleykum wa rahmatullah ak sa amiin jërëjëf euh, Serigne ci leeral gu am solo leeral nga ko mbokk yi xam naa kon comme mel ne temps bi gàtt na te it yi leen tënkit bëri na. Mm-hmm. xam naa du ma teel a yàgg waaye kon yan cadre rek ngay bàyyiloo xel mbokk yi nga xam ne ñoo ngi jóge ci gox yëpp di teew ci bis bi. yow mi nga xam ne yaa ngi lépp lu jëm ci wàllu sécurité ci bis bi. waaw kay waaw sécurité bi euh, dañ ko bokk ñun ñëpp euh, daanaka booy seet Mourtala Seck mooy chef d'équipe bi moo yor lépp ñun ñëpp ci ginnaawam lañ topp. mu ñun ñëpp ci ginnaawam lañ topp mais li ci am solo mooy li ñu dénkaane mooy li ko tàmbale ca ba ñuy génn seen i kër ba ba ñu dugg si ci salle bi ak ba ñu jóge ci salle bi ba ba ñu dellu seen kër ndax sécurité du salle bi kese. tali bi fi ne niñ koo kiiyee oto code de la route fi ne dafa joxe sécurité am parquet jo yi ñuy parquet jo fi mu ne ñëw gaare sa oto foo xam ne waroo ko faa gaare tam loolu itam war nañu ci dimbale ngir yàlla ak jëm sëñ Tuubaa ndax it yooyu yëpp ay insécurité la yoo xam te ni benn bu rek bu ñu xas kii rek ci mbooloo mën naa indi jéyee yoo xam te ni yàlla na ci yàlla musal kon daal li ñu ñaan yàlla mooy kenn ku ñëw ci mbooloo mi na respecté norme yi nga xam te ni ci parc ba ca li ko tàmbale ci ba seen kër ba ca biir kaar yi ba ba ñu wàcc ci njiddu sal ba ñu dugg ci salle bi ba ba ñu toog ci fa fa ñu toog ba war a liggéeyal Serigne Touba loolu yëpp dañ ciy ñaan ndax kenn ku ne rek bu fàttee rek ne am na ay normes yu ma respecté rek mën naa indi jaxasoo kon loolu la ñuy la ñuy dénkaat nit ñi ne leen bu ku ci génn sa kër na ànd ak norme yi nga xam te nii bu ñëwee fi la koy fekk ak norme yi code de la route bi parce que tali bi tam euh, gis nga ko ni muy demee yenn saa yi ñu ne diw tàgg nañ ko yàlla ñu ci yàlla musal kon daal li ñuy sàkk mooy ñëpp respecté ko boo génn sa kër ba ba nga fay duggaat di fa dellu lépp loolu lépp mooy mooy yi nga xam ne mooy woyofal liggéey bi mooy yaxanal liggéey bi ci la ñëpp mën a amee tawféex yàlla nañu Serigne Touba defal barkeb Cheikhul Khadim ñu ngi leen sant bu baax jërë ngeen jëf ah, jërëjëf Serigne si Sylla kon mbokk yi ki ngeen déggoon sànq mi àddu rek mooy ñu Serigne si la nekk kenn ci ki nga ñi nga xam ne ñoo yore lépp jëm ci wàllu sécurité ngir waajal bisu xasida bi nga xam ne nam nañu ko amal ni ki suba le 23 septembre fii ci Milan Malpensa Fera ci via 11 septembre fii ci bustu arsiso in Allah taala kon suñu suñu ñooy sant baax di la gërëm jërëjëf ini uxaadimu nasaratura fi ardim li maliki murtara सा